Assalamu alaikum. Good morning, Gambia. Good afternoon to other parts of the world, and good evening to other parts of the world. Welcome to LSTV1. My name is Ami Ferreira, and you're watching the breakfast show as we always do. Um, I'm here with in the studio with um, Mariama Ba. Uh, comme niñ koy defee saa yu nekk rek asalaamaaleykum nuyu nañ képp nga xamante ne yaa ngi ñooy seetaan ci jamono ji ñu wax nag la ne uh, dalal ak jàmm fii ci LSTV1 ci programme bi ñu xamee ci di breakfast show comme niñ koy defee saa yu nekk. Um, alteneng àllarba ak ajuma bu nekk nag ñëw fii waxtaanee li nga xamante ne nag moo gën a fës ci kayitu xibaar yi waaye nag balaa ñuy xuus ak programme rek mu bàyyi sama naataango bi mu daal di nuyoo nga xamante ni seetaankat bi ah, seetaankat yi <laughs> ñu continuer ak nga xamante ne mooy programme bi yéen wees ka la ñu am ñu kafe café Mariam. a de. jaam rek sant yàlla. Okay. Uh, good morning, Gambia. Good morning to the viewers of LS TV1. Anywhere we are signaling, this is LS TV1 breakfast show with Ami Fadera and I, Mariamapa. But with our cup of coffees and uh, newspaper, today is Friday, Juma Mubarak to all Muslims. ñu mm-hmm. ngi jaajëfal bu baax a baax képp ko xam ne yaa ngi bàyyi xel LS TV1 ak fu ñu waay di dénkee ay bëtam rek. ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax di la wax ne dalal ak jàmm ci li nga xamante ne moo di breakfast show bi. tey di ajuma ñuy wax ne juma mubarak di ñaan yàlla rek may ñu ñu fekkee ajuma yu bare bare allahumma amiin ndax ah, képp kuy jullit moom ajuma bu jotee rek da nga ko war di yëg di koy fiil ci sa xol bi mm-hmm. kon tey ajuma la di ñaanal ñëpp jàmm salaam tawfiq ak sutura bu saawaan bu baawaan amin yaa rabbi yal na yàlla nangu ñaan it's a beautiful friday morning um, comme ni ñu koy defee saa yu nekk rek tey ajuma la waat yi ñëwaat fii ci yàlla si ci plateau bi ànd ak suñu kaasu café ak suñu kayitu xibaar rek fas yéene waxtaane li nga xamante ne moo gën a fes uh, ci kayitu xibaar su ko defee rek uh, comme niñ koy defee saa yu nekk rek I'll just read the uh, front pages of the front page of the Foroyaa newspaper and then from there Mariam will read the standard and then we get into this program Um, first of all, um, the top stories here on the Fourier newspaper. Um, the heated story here I see is IEC rejects Savali's election bid for nomination as UDP uh, candidate for a candidate for Busumbala constituency. Four DOI um, candidates file in their nomination papers in KM. DOI PPP candidate submitted uh, nominations at IEC returning officer for Banjul. And um, NHRC recommends creation of more polling stations um, fishery sector reached an estimated first sale of US dollar um, 362 billion in 2016, says FAO rep and here you have NPP contest seven seat in West Coast region. Um, those are the um, top stories here on the Fourier newspaper. And on to the question of the day, um, what are the bases of rejection of the nomination of Momodu Sabali and Fatuma Jawara is the question on the standard uh, newspaper in Mariama. Um, those are, yeah, oh, sorry, the Fourier newspaper loolu la déggee gu ma wax dëgg. loolu la ah kon ñu dem ak li nga xamante ne nii. moo di standard mënu la ko seet benn la si lay jaar. ñu dem ak standards the the stories that we have here in standard. UDP uh, to appeal Sabali's rejection. Darboe mm-hmm. condemns police provocation. And the other story is uh, Bakau to get 14.9 million compensation from GPA uh, Councillor Independent candidate vote to save Funi from uh, pocket saving National Assembly members. And another story for arrange for alleged stealing item worth over 7 million. Mm. And PDYS nominated 19 candidates. Uh, those are the top stories from uh, standard newspaper. standard newspaper okay am na solo comme ni nga xamantene nak no lañ Ehm, xam naa dañ commencé di ko di ko di ko faram-fàccee bopp xibaar yi maanaam dañu ko jàppale ci kàllaama nasara eh, um, wolof bi ba um, anyway su ko defee rek ñu xuus ak li nga xamante ne mooy programme bi um, gis nañ ne lu fi gën a fes tey mooy rejection bi ki nga xamante ne mooy Mamadou Sabali mm-hmm. ndaxte kayiti xibaar yi ñaari kayiti xibaar yëpp bind nañ ko waaye tamit gis nañ seen laaj bi sax Euh, foofu lañ ko tënk laaj bi nga xamante ni moom la standard euh, def tey ci seeni kayit bi foofu lañ ko tënk waral sama tey suñ morning show bi sax topic euh, dinañ ko indi mhm. mu nekk loolu loolu moo war a nekk topic bi tey mhm. nit ñi képp koo xamante ne nii bëgg nga yëpp dañ ko because tey dañ bëgg affaire bi yaatu si mbir loolu mhm. noonu because ñu bari tamit ñu bi amee ñaari xel si ne weda lan moo waral loolu ñii ñi ngi am xel xëy na it's not right li IEC def ñii ñu ne xëy na loolu moo right so ñëpp nag nañu soxla seen opinion si loolu loolu moo waral dinañ dugal li nga xamante ne moo di topic bi yéen a pare nañ teel a ubbi line si tamit pour ñu bëgg a bokk yaa ko screen bi mu daw di nga gis nga xamante ne moo topic bi foofu noonu at the same time tam ku bëgg a call di nga mun a dugg nga call seen sa text message wala sa comment mhm. ah, dinañ ko fi daal di riit Um, am na solo um, su ko defee rek ñu xuus ak li nga xamante ne mooy programme bi gis nañ um, um, comme niñ ko waxee tey luñ tànn ci topic mooy li ngeen gis noonu ci suufu screen bi rejection of um, um, I think we have a um, um, um, spellings problem here because it should be the rejection of Sabali's nomination by the IEC. IEC yeah. yeah. yeah, I think yeah. the technician so, has a problem there. That's the topic. I think I hope it's yeah, I, hope it will be edited very soon. Yeah, little more topic with the rejection of um, Sabali's nomination by the IEC. A uh, little more topic with the ni nga xamante ne nag moom la IEC dàqaloo ki nga xamante ne mooy Mamadou Sabali kayit yi nga xamante ne moom la yóbbuwoon foofu ñu tànn ko. mu waaw waaw di wax suñu technicien bi rek mu gaaw ñëw génneel ñu ko uh, nekk loo xamante ne nii spelling bi dafa xaw a so you can yeah. Yeah, you can just edit that and then we continue with the program. Mariama, come in, go ahead, but um, di yeah, Alchemist, yeah. the topic uh, should be the rejection of Sabali's nomination, by the IEC. yeah. I hope that, um, that, that, that that gets solved very soon and we get into this program gis nañ démb di alxamis um, fukk ak fukki fan ci weeru ci weeru ci weeru <laughs> maaj um, gis nañ ne nga xamante ne Eh, muy Mamadou Sabali yi nga xamante ne fasoon na yéene pour bokk ci ñi nga xamante ne ñooy jongante ci sànnamkata bu nekk député yi fas yéene woon a taxaw ci Busumbala constituency eh, pour ñu fal ko mu dem toogal Busumbala constituency foofu ci nekk député waaye gis nañ nag eh, buntu bi nga xamante ne moo saytu wàllum sànnamkata fii ci biir réew a di AIC daal dinañu dàqalu ak jéego bi nga xamante ne jëloon na ko ndaxte nee ñu am dañ koo tudd ci benn commission bi nga xamante ne nag ñu ngi ko doon def commission of inquiry mu di commission bi nga xamante dañ ko taxawal fu mu def ay gëstu ci li nga xamante ne moo fi xewoon ci beneen nguur eh, nguur bi fi jógee eh, ba taxoon nag ne ne ñu oo nañ fa turam nguur yaa jame ñam ci nguur yaa jame ah, nee nañu lim fa dañ ko faa tudd ay yooni yoon ba tax nag eh, nee nañu luwaa bi wut Um, section 90 um, subsection 1. E yeah yeah léegi foog naa léegi is correct now. yeah <laughs> am na am na jàmbaat na ko Ousmane jàmbaat na ko dafa nekkiwul dafa nekkiwul <laughs> waaye Ousmane yooyu du ma koy bugg ndax xam nga ñun pël yi lépp lu ñoo de dafa war di correct so boo defee loo xamante ni correct gu rek séeréer yi joolaa yi dañuy nekk di ree so <laughs> dafa nekkeegu kay naan kafe kay naan kafe dafa ti ubbeeku Ousmane anyway su ko defee ñu xus rek gis nañ ne uh, comme ma ko waxee j uh, buntu bi saytu wàllum sànni kata dàqal nañ ko ndax dinañ fa am E commission bi nga xamante ne dafa au tricot noonu kon sax dégg nañ fa ay turam yu bëree bëri te luwaa bi nangu wut ko luwaa muy baat réew mi um, subsection um, nine uh, section 90 subsection 1E e bu 1970 constitution bi ne nangu wut pour nit nga xamante ne oo nañ la oo nañ sa tur ci commission pour nga taxaw ne da ngay uh, jël place bi nga xamante ne place su nguur la ba taxoon nag ñu dàqalu ko waaye nag war nañ koo jox jéego bi pour mu dem foofu ci néegu àttekaay bi uh, ñu càmbar mbir mi ba xam ndax fu ñu ko teg wóor am war nañ ko faa teg wala wala déet Mariama loolu mooy euh, li nga xamante ne mooy topiku tey bi euh, foo ko tàmbalee man na fu ma tàmbalee mooy comme nañ jël exemple si comme si mel ni Rafi Diab Rafi Diab bi ñu demee ba jël form bi ñu mhm. gis liñ bind si form bi mooy mun loo am dual citizenship dafa bàyyi kon su fekkee ne tamit euh, su fekkente ne laa wax su mhm. fekkente ne because politique la nguur la te dafa sew léegi-léegi nga wax ñi ñu jëlee la feneen waaye su fekkente ne tey jii jël nga form Euh, go over nga form bi gis nga fa lu mel noonu ñuy wax ne ne sa tur buñ ko mentionné fenn because wax nañ dem nañ sax ba ñu ne su fekkente ne because Fatoumata dat Fatoumata something Fatoumata Bojang la xawma am na keneen ku waroon a toog si NPP la bokk moom mm-hmm. ba kooku am na ku bindoon muy wax ne ne dafa naxar lu loolu because waruñ ko woon jël keneen nañ waroon jël moom boo gisee ñu nanguta dem dafa liggéeyoon ci AIC e e yi te nanguwuñu nanguwuñu mu bokk bu fa mm. demee bañ ko xam moo tax ma ne soo jëlee form bi nga go through it nga xool ne ne ah am na yuñ fa mention yoo xamante ne yow mus nañoo tudd sa tur si dara mus ngaa liggéey dara ba loolu yëpp wuñ ko man dama ne ah, warutoon jarutoon sax nga dem foofu noonu waaye su fekkee ne teel a jël jéego waaw dem si néegu atekaay bi xoolaat loolu noonu waaye su fekkente ne gis nga loolu mu si form bi yow defuloo dara lu du nga ne ah damaa dem because askan yu bugg nañ ma am naa mbooloo am na nit kon war naa mun a dem nit ñi toppala dem bu foog because buñ seetee ne déma problème mu fa woon ñun mhm. ñi sax foofa nañ doon noonu soo duggee suñ page bi danga koo gis ko mhm. di yeneen yaa si biir tam ñu ngi ko doon wane mhm. muy wane ne ne comme problème mu fa si diggante takk der yi ak ñoom ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak saabali ñu doon sànneente xeer tear gas foofu noonu ba am na sa benn police bu ma gis waa ne dañ xotti fii am gaañ ko gaañ bu métti te takk der la te ñooñu tamit kaaraange réew mi moo leen ñor su man dama ne euh, réewu Gambie dañ war a passé fu ñoo xeexee ngir politique dañ ko war a passé non non dëgg-dëgg ko war a passé because lu ñu metti ñun dafa bari mm. ñun su fekkoonte ne xeex ak xuloo kese la billahi ñun askan wi rek mm. buñ fi indee pour affaire xeex Gambie dinañ ko bugg a fay mu dem because lu ñu metti dafa bari non non lu ñu metti dafa bari dund bi dafa seer mburu mm-hmm. dafa seer lu nekk dafa seer lépp boo buggee potu sukkur léegi twelve dalasi la moo jar so ñun ñu ngi am things yu bari yu ñu war a tekki à suñu biir duñ ko mën a boole ak jafe-jafe mm-hmm. because tey am na a kër yi nekk si boor boobu am na benn kër boo xam ne dañ fa sànni teer gas so su ñooñu nekk dawoon dawoon dugal si biir seen néegi tëju loolu mun na leen a gaañ mm-hmm. jéye la moo indi tafaar la moo indi soo man dama foog ne ne lu ñu defutoon si élection euh, bu mag bi nga xam ne mooy dixième présidential élection bi passé kon waruñoo nangu di ko def si élection yu ndaw yi mm-hmm. pour affaire yu néegu député soo boo mu nee buñ la teg buñ la waxee reject nañ la am na koo xam ne mu ngi fa taxaw soo kooku dina dem because man dama ne su fekkee sa réew ñor na la hmm. Gambia moo la ñor Gambia nga bugg a Gambia ngay jiital hmm. lépp lu nekk si form boobu noonu war nga koo mën a xool bu àndee sa sàrt ak sa loi bu la mayee pour nga bokk you have the right waaye nag waxuma tamit su fekkente ne ay si bind ko woon waaye foofu lañ war a ñëwee nag ah, balaa ñuy dem ci ci ci xiiru a ngaay bu amul mm-hmm. diggante police ak supporters yi sax mm-hmm. lu ñooy nekk waa ñooy est-ce que AIC mos nañoo génne si di wax ni ci ne fooguloo tamit ne war a passé ci nga xamante ne dañoo dangaa bind kay nit ubbi ko ba gisal ko boppam kon naa ne depuis euh, bi buñ jàppee de ci lañ war a génne si di wax ni ci lan mooy requirement si jaral la ñu génn si télé di expliquer ci li mooy requirement si koo xamante ne lii ak lii ak lii xew na ba du lay def lii ak lii ak lii nga gis boromam dafay teel a jóg mu mun a xam fan la moo teg tànkam da nga xamante ne moom su demee foofu noonu duñ ko di jëkk wala sax su fa demee moom su xamee dañ ko war a jëkk dina dellu gannaaw boppam uh-huh. soo lu yëpp doon na li nga xamante ne war nañ koo mun a seetu uh, duñ bileem benn parti waaye nag su ko naa ne ay tamit uh, dellu nañu fa gannaaw tuuti waaye nag uh, su fekkee nag ne fi ñu ko teg tegu na ci loi bind nañ ko si forme bi si forme bi nañ wax loolu parce que suñ gisee ñeneen ñoo xamante ni génn nañ mm-hmm. mbir yooyu moo tax ñu génn kon it's very important tamit pour ñu xoolaat mbir mi man nee naa tamit ñi nga xamante ne ñoo dee supporters yi nañ dee bàyyi xel seen njiit yi ñoom ñoo dee jël papers yi duñ ko dee wanal benn supporters dañ waxante dëgg seen forms yi benn supporters duñ ko dee xam waaye desi lam dee nekk si ñoom between ñoom executive yi ñoo ko dee waxtaanee binda summit everything so man dama ne supporter bi démba nice it's not nice xam nga as citizens nañ wax Mhm. lu toll ni place boobu ak mbedda buñ ko doon defee dafa xat-xat boo xamante ni mënoon nañoo gaañ keneen su yenn bu xewee dem leen si bërëbu àtteekaay bi boo leen demee foofu noonu maa leen woon su fekkee yéen a am dëgg ñi ngi duñ nangu di seetaan loo xamante ne nii rafetul waaye di sànnante ak ay xeer ak ay takkader di sànne tey buñ la dóoroon tey ji teyagas mu dal sa kanam bi dal sa dara nga kaañu kan moo koo yëg yow yaay loru mhm. moo tax léegi-léegi dama ne politique jarut yenn yi te buñ seetloo dimba li doon xew foofu noonu saabali si boppam nekkutoon fa di jamante xeer hmm. dafa dugg si dafa nekkoon di waxtaan ak gars yi waxtaan ak gars yi pour xool fan la moo teg tànkaam kon kooku xam ne moom mu doon seet wéyam naka la moo fexee def kéem pour pour mën a génn si loolu noonu seet lan la moo solve problème boobu noonu mhm. yow mi nga xam ne yaa ànd ak moom nga ne loolu du si dal commencé jël sa xeer di sànni di jël sa xeer di lii soo xam am na yenn yoo xamante ne boo ko defee man man ne sa bopp nga lor mhm. te sa parti ngay teg problème because boo gisee ki nga xam ne moo ko jiite looy Ousseynou Daabo doxut si violence hmm. si dixième présidentielle élection bi bi mbir yi commencé xew dafa wax gaayam yi dal leen di same thing démb woote na press conference lam si wax yi tamit na rafet lu wut si rejection bi waaye wax na leen ñu dal ñoom nañ ko dem xeex fi nga xamante ne mooy ci bërëbu attekaay bi because moom xam na luwaa bi xam na lan la luwaa bi wax hmm. kon léegi supporters yi waru est ce di xool si se moo tax ma ne kéwél dina tëb doom jëbët hmm. because yow mi nga xam ne ki la jiite xam nga ne kii doxut si violence always si lu baax la moo dox lépp lu indil jàmm si loolu la moo dox yow mi nga xam ne yaay supporter bi because last gisoon ne nañ ni kon Rwanda si la moo mm-hmm. jar di sànnante xeer parce que am na ku ma si gis bu ñëw si policier yi dafa merloo gars mu ngi leen doon jam xeer bi mu leen jegee dañ ko téye dóor ko waaye tam nga xam ne ñoo di takk der itam war nañ di bàyyi seen parce que nit ki nit su even su la la su la sànnee xeer sa yow mi nga xamante ne yaa fa nekk pour jox ko kaaraange mhm, mhm. war ko attaque moo mat a wat a a def mooy jël leen handcuff leen yóbbu leen fi nga xamante ne mooy si police station waaye waruñu faa nekk am na ko xamante ne ñu ko fa doon dóor dóor yu métti yu loolu yëpp nekk na wala sama dama ne léegi-léegi sa su gaay di sànnante xeer wala di jamante xeer waaye not nga nga ah, seen mu doom paak seen bagage dem seen yoon ba leen sax because xam naa ne buñ xoolee gisuñ police gisuñ dara kan la ñoo xeexal duñ xeexal kenn dinañ ñibbi xëy na tam mer moo leen jàppoon because xam nga léegi-léeg tam nit mhm. ki nga prépare jël sa t-shirt mhm. ñaaw déeg si otay jubuleet nga gis saabali nawleem yëpp ñu dem IEC ñu nominé leen ñu bokk ñu génnaat ak seen seen seen crowd bi yuuxu tàccoo feccoo moom mu dem ñu teg ko gàcce ne ko bokkuloo waaye loolu teewut moom mi nga xamante moom lañ reject moom merut yéen loo leen mer mer mer war ngeen a mën a muñ moom mer na xam naa parce que danguut woon na ak ñi nga xamante ne taskati xibaar sax wax na ne moom na def li nga xamante ne mooy press conference waaye loolu yëpp mu ngi ko def ak dal ak yar ak a muñ loolu noonu dafa doon li nga dafa <laughs> xamante ne dafa dafa olof nee na buur aayu dag yaa aay mm. buur boo demee ci kër buur nii even eh, in <laughs> state kii naka la ah, nu mu tudd state house boo fa demee pour baro man dama ne pour baro nga gis ko du jafe. Mm. ñi nga fekk si bunta bi. ñoo lay defal mbir mi mu métti métti métti ba nga xam ne nga fone baro yàlla la baro yàlla la. man dama ne la bur ay dag yaa ay si gannaaw. always ñoom ñoo dee create problème ñoo dee indi problème yi mer mm-hmm. naa bëgg naa kii xam fan laa ko toll waaye jarutoon sànnante xeet jarutoon mm-hmm. si guddi gi ñu ko répétaat dama tiit ma gisee tiyagas bi dugg si kër googu because seen ne ñu ngi tëj seen buntay waaye ñooñu suñu tëj ko seen buntay su fa xale nekkoon fa xale nekkoon wala dara nekk fa tiyagas bi wala mu dal si kaw nit mara dee taale dina indi problème jafe-jafe eh, su ko defee ñu dellusiwaat li nga xamante ne mooy rejection yi um, Euh, euh, Amadou Sabali ba léegi ci loolu lañ nekk di waxtaane euh, gis nañ ne lu tax fuñ ko fuñ ko tënk daal mooy ne dañ ko dañ tudda turam ci li nga xamante ne mooy commission bi waaye ok am na ko comment Taib Edugan xaw ma Taib la tudda <laughs> ah Edugan la xaw ma Edugan because ama surname bi moom waaw doy na waat mu ne IECDR rules is written on paper mm. any person who's serious must know the rules mm, loolu la any person who is serious must know man man maa ngi loolu tam maa ngi ko doon maa ngi ko doon maa ngi wax léegi sànq because xam a ñun tamit exemple bi ñu mën a jël mm-hmm. mooy si comme Rafi Rafi dëgg dëgg nañ jël exemple si moom man dama ne exemple la pour ñu jëkko si moom because nee na moom bi moo start di oote xamutoon li nekk si fifi waaye di moment mu jël forme bi gis ne ne dual citizenship du nangu mm-hmm. si la tekki nombal tànk waaye taxul mu ba politique waaye dafa xam ne fu mënatu faa bokk kon tamit Israël nga bañ a tamit ekkati nit ñi because ekkati nit ñi ñu bàyyi seen i soxla toppala yow yow yaa scientifique léegi yow est-ce que xam nga ne nag kooku xamoon na loolu mu ngi fa non non loolu la nag ma ne la loolu il faut pour bu xam ko ami il faut mm. moom moo war a génn wax ak taskatu xibaar yi mm. il faut moom moo war a gindi nit ñi moom moo war a gàggante nit e lii ñu def boo leen demoon nga laaj leen dinañ la wax ne fii nañ ko teg because wax nañ ko fan nañ ko teg fii lañ ko teg because na nañ ko dafa am commission buñ ko oo dafa am commission amna commission buñ ko o motax ñu reject nga xamanteni ne mooy Modou Sabally gis nañ ñu bari ñi nga xamanteni ne nañu ci eh, TRRC ba léegi nga liggéey si nguur non non waye comme bu xuma liggéey ci nguur bi dafa top pour nga waye bi tam place pour dem liggéey dedet waye togal la togal la am mm. man dama ne dafa am togal dafa am ak nga liggéey dafa am ki jël ay këyitam mm-hmm. dem ba si bërëbu nguur mm-hmm. nek fa secrétaire askan wi tabuñ ko pour mu nek ko dafa dem yóbbu fa ay kayitam ñu gis ne liggéeyam soxla nañ ko ñu teg ko fa comme exemple laa lay wax mhm. waaye bokkut ak ki nga xamante ne askan wi ñoo la bu na vootal mhm. askan wi ñoo la war a vootal am na ñoo xamante ne ni tey jii comme exemple waxuma ne moom waxuma moom waaye comme keneen laay wax mhm. comme exemple man naa wax exemple suma bopp comme tey jii ñu oo tuddoon suma tur si tiyaaraas yi ne man si nguuru jàmme laa bokkoon def naa lii ak lii ak lii teg naa naxar kii ak kii ak kii yaa ngi dégg euh, di nga gis ne ne su ma demee war a ma nar taxaw di laaj askan wi seeni i kàddu am na ñu ma tooñoon si askan wi. Mhm. wala fi ma nar a taxawal am na kër goo xam ne teg naa leen naqar ba ilaa yow mi din duñ ko mos a fàtte te ñi seen raay la pour ñu yóbbu la si bërëbu attekaay bi kon yow yaa ngi amee war a dem si bërëbu attekaay ñu war laa yóbbu tey ji koot exemple yow tey buñ la tegee si bërëb boobu ndax di nga ko mën a fulfil parce que yaa ngi war a dem koot yaa ngi amee si lifin yi nga war a dem ah, comme daal yu bari tey weer bi weer bu nekk da nga war a dem report wala semaine bu nekk da nga war a dem report yow yaa ngi amee lu sax ak jóor si koot bi comme exemple nañ wax ne et criminel koo xamante ne comme waxuma waaye damay exemple et boo xamante ne yow criminel nga da nga def dara da nga sàcce wala nga def dara mm-hmm. ñu yóbbu la si bërëbu attekaay bi yow bërëbu attekaay mu ngi am ak yow ak ay daan yaa ngi dégg mm-hmm. yow fu ne nii yaa ngi amee këyit buy wane because sometimes nga dem sa di liggéey dañ la dee wax nga prouve et këyit boo xamante ne musuloo dugg a prison mm-hmm. wala musuloo am ah, ak liggéey so the same thing tamit process yooyu noonu tamit mu ngi si biir affaire ñun ñoo ko bokkal la dañ waxante ne ñun ñoo ko bokkal affaire national assembly du ay kii la wala que ñun ñoo ko bokk. Mhm. ñun lañ fa gars yi di dem di taxawal ji te ñun tamit baax na pour IEC bi xool suñu àq ak suñu yelleef ami mun na ak accept ne kii defuma dara waaye Mariama xam ne ne man kii teg na ma loo xamante ne nii bi ilaa yow mi di duma ko musa fàtte man ak moom dañ war a dem si bërëbu àttekaay waaye waaye waaye est-ce que xam nga ne ay IEC euh, mistake bu ñu defoon ci euh, presidential election bi ba reject euh, nga xamante ne nomination nga xamante ne mooy docteur Ismaila Ceesay loolu tax na ba yibin suñu rejekaatee keneen ni jul leen óolu parce que kooku dafa dem si néegu ATK bi xeex mu daan leen. xam nga amoon time si <laughs> dixième président élection bi maa doon wax ma ne yàlla buñ ci jékki-jékki. Mm-hmm. toog a toog ba mu yàgg ne diwa gagné. Mm-hmm. diwa wiin ñu ngi di jubalee jékki-jékki ne déedéet dañ jiw <laughs> ndax si time mu tam jàmmee mu ngi doon kaas loolu. Mm-hmm. di wax ne ne dañ dem ba mujj gi ñu génnaat di wax ne ne dañ mistake. waaye bii man dama ne suñu mbir yooyu because docteur Ismaila Ceesay mbir bi ma xewee ku nekk tam waxal ko jikkoom. ekkatiwut fitna waxante dëgg dëgg la mer na ñu suuf waaye ekkitiwul fitna ekkitiwul benn fitna dafa dem fi nga xam ne foofu la war a dem ñu lijjanti ko ba mujj gi moom moo mu daan seen kaw waaye gis nañ tamit ne even though bu mu daanee am dëgg seen kaw gars yi nanguñ koo jox ah xam nga nanguñu def lu nga xamante ne waaye bu dee moom moom moom moom moom mujjee dellu parce que gars koo jox waaye parce que xam a dem xam nga ami daf déedéet dama xam ne ne mënatu a dem mm-hmm. xam nga tamit nañ waxante dëgg su fekkente ne ñi ñaa ngee génnee ay ay junney doomu aadama ñu toppa seen gannaaw mm-hmm. yow at least yo xam nga ba xam nga yow xool ba xool nga xam nga ne jamono ji Gambien mënuma toog si bopp nguur gi mm-hmm. baax na tam nga dellu gannaaw yaa ngi dégg xam nga tamit man fu maa waxee ba léegi waaw fu maa waxee ba léegi moo nekk ne rek moom saabali su fekkente ne ay isi binduñ ko fa moom li mu def mooy right mooy na dem si bërëbu attekaay bi. ah si even fekkee ko fa may nañ ko fa di eight hours ñaari fan. waaw pour mu dem si néegu attekaay bi dem xeex ko dem xeex ko soo na dem mu dem xeex ko foofu mu lijjanti ko waaye ñoo supporter su mi nañ bàyyi coow li because coow nekku na loo xam ne mooy yóbbu réew ci kanam lii dafay gën a indi mbir mi jafe-jafe mm-hmm. ndax su fekkente ne yow da nga bugg a ñu rijeg la nga indi say supporters eh, sa naka supporters indi uh, violence so nit ñi askan wi dinañ dem mujj mun nañoo tiit ne ki kat bis bu wiinul bu si bokkee te wiinul supporter sang yi mën nañ fay indi gitu benen jafé jafé kon dafa bax motax mané ma ayu dag ya ay ndax mom mu ngi paré dem ci négu até kay li jënti ko foofu ni top sen gnaaw gannaaw wara bayyi sen xel ndax i ki nga xamanté mom ngay support eh, even loko ko bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a warul laa nga dem ray sa bop ndax so ray sa bop yaay perte gis nga buñ attaqué ñi nga xamanté ne maire bi ma gis mu taka kala eh, fi hmm. di wax nan ni ma xool ko ba mu man su fekkee yaa ngi amee high blood wala dara boo fi daanoo ko jël kan yaa ngi ni mag nga yaa ngi ni mag nga yéen ay warloo ko de yow a wax xale yi ne bàyyi leen mhm. na ma de bi moo def loolu am na doomam boo xam ne mu ngi àndoon ak moom mhm. doom boobu tam du nangu yaayam taxaw di xët-xët te moom tam du ko def because police yi sa mujj nii même mu ngee daw waaye police yi faale bi ko bi ko xam nañ ne mag la mhm. ko fa laal so man dama ne yéen ay tamit dañ xoolaat si bu wax seen bii nañ xam ne ne seen exécutif yi bëgguñu problème bi mbir mi xewee dañ dee oote press conference dañ mm. dee oote press conference yedda gaay so bu kuñ lay buñ lay ku lay yedda yaakaar naa ne jaratul kon koo xam kooku bugut violence waaye yow mi ko topp si gannaaw nga ne déedéet man bu gaay cuujee fii man naa cuuj fasale man daal naa soti kaane ba mbir mi saf rek mm. so kiñ dóor de moom mi bëgg a dee fu ne nii xam nga gisuma ko waaye këram foog ñu tàngal ndox tàng di ko dam parce que dóor nañ ko dóor yu métti te loolu tamit takkadeer itam nañ moytu mm. dóor yi dee dóor tam dañ xam yaa nit nit ki nga xamante dafa dem ba xetta luwaa te yow nga xamante yaa fa nekk pour jox ko kaaraange amuloo benn right pour nga nga nga daan daanu ci kawam di ko dóor ay dóor yi luwaa bi dafa am yoon war nga ko mun a handcuff dem yóbbu ko fi nga xamante mooy ne mooy ne dégg bi ñu atte ko foofu waaye jàpp ko di ko dóor ay dóor yu métti su ko waaye ñoom juróom ñoom juróom juróom waaye kan imagine koo xamante ne yow yow nee xam nga war ñoo aar dafa baax pour léegi-léegi bu policiers yeeg yooyu nag bu leen dee jël ñu xool policiers yi nga xam ne naxari wuñu beneen am na policiers yoo xam ne seen xol yi mm. toll na foo xamante ne nii boo leen robee xool leen sax ñu ñu xuuxal la so because démb moom dëgg dëgg liñ ko def ñun ñëpp rafetlu wuñ ko because ñun ñëpp ay citoyen lii nekk njël benn li gisoon nañ tamit laa sayam tamit bu li fi amoon buñ sax ñoom day bàyyi sax xam nañ ne am nañ ay sisters yoo xamante ne nii te ji danga koy xoolee si ku nekk danga koy xoolee sa bopp bu doon suma rakk wala suma mag la mm. te lii ñu ko def dina mën a xarit te léegi jamono ma dee waxee roog seen léegi gaaw na te nit ñi léegi wératuñ daf fi tàpp tàppal kenn léegi mu dee këndang sa loxo mu dee sa loxo ñu ne yaa ko rey da nga fekkoon mu dee ba pare anyways ah, waxtu bi jot na pour ñëw bi line si ah, waxtu bi dafa gaaw de Mariama moo tax moo tax dee am na léegi am na léegi am legi rang bi man dama lay wax rang bi rang bi legi dafa seere line bi si si screen bi rang bi rang bi aca continuer rang bi rang bi dafa seere a nga bu njëkk ba ñu wane rang bi dafa seere si pour am jëkkër wala am jabar léegi rang bi dafa seere pour dee pour dee waaw dafa seere pour dee da legi rang bi legi tàncalante la roog léegi mayetu nit ñi dara legi time bi nu mu gaawee balaa ngay xiis boo xiisoo ak bi ñu noodu takkusaan benn lay doon te teg si léegi loo lekk mu mel ni <laughs> ya, dara fuñ jëm ah. man daal yow daal lekki daal. non non lekki sa problème la. soo ndekkee balaa ñuy wax boo ndekkee balaa ñuy wax añ. dafa am ne musuloo lekk dara man léegi dama di tiit si suma suma affaire man. parce dama fi dee lekk léegi. jékki-jékki mu jékki faat ma ma parewaat pour lekkaat léegi léegi damay dem bay waaj jënd lekk suma xel bi moo ma dee yedd dama ne man war naa dellu gannaaw tuuti parce que yenn bu yàggee tamit góor dëgg du ko def. yenn lekk yi ëpp foog nga wàññi. baax na daal moo tax koor gaa ngi ñëw ci maa ko xalaat. anyways mu ngeen a koole ci number bi nga xamante ne mu ngeen gis ci seen screen bi 7825 749 7825 749 mooy ci number bi ngeen mën a bokk ci programme bi dégg ngeen li nga xamante ne mu lañ nekk di waxtaanee mbirum rejection book nga xamante mooy saabali. lan ngeen ci am pour wax anam bi nga xamantene ci la taxadar yi muy PI officers yi doxalee ak ñoom te di nekk jël benn yoon ak tamit fi nga xamantene fa la IEC wër li nga xamante ne am rejection sabali bi fan lañ fiñ ko wër ndax fu wor la ndax war nañ ko mëna sétane di Gambi di Gambian police officers are not well trained they are well trained seriously yeah mm -hmm. <laughs> more police brutality no police police brutalité loolu lañ fi war a moytandiku nag um, war nañoo gën a tàggat ñi nga xamante ñooy suñu taxadeer yi parce que ki nga xamante yaa nekk pour jox ni ki kaaraangeem uh, noo ma taw wat ak lu munti xew waraloo am sañ-sañ bu toll ni jël sa sa san xam ma seen battal lañ ko di wax xaw ma seen lifin yooyu yu ñu ndëkkee di ko dooree doomi aadama eh, te loolu nekku na li nga xamante ne ba xam xaw ma ndax suñ ko na dañ trayoon pour um, arrest ko mu bañ waaye even suñ ko traye pour arrest seen seen seen seen luwaa bi nangu na la nangu ko pour nga nga ko ba pare nekkut benn nekkut ñaar nekkut ñett ba ci juróom juróom ci ay doomi naa doomi aadama tiim ke benn nit di ko dóor ay dóor yu métti ah, loolu nga xamante ne ñu ngi koy gis yeneen réew mu nekk fii ci biir réew dafay tax ah, ñu eh, gën a am eh, ragal ci li nga xamante ne ñooy suñu kaaraange ah, ci suñu ñi liggéey si buntu kaaraange yi parce que doo dem ba nga gis nga xamante moom nga denk sa kaaraange pour mu aar la gis ko muy muy moom si boppam muy muy daanu ca kaw di la dóor loolu doon na li nga xamante ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax doonut lu rafet Eh, doon na li nga xamante ne daan na beneen comment xam naa si bi mu wax moo police brutality xam naa dafa made mistake mm, moo tax dilig na ko mu bindaa mu ne no more police brutality no more police brutality yeah no more police brutality eh, soxla wuñ ko fii ci réew mi li eh, ñu koy gisee ci yeneen réew rek soxla wuñu mu ak si fii ci biir réew mi waaye tamit ñu ne ay ba pare ay du yem si boppi borom mm. ay du yem si boppi borom nit ki li ngay li ngay jéem foog na ne man dama ne mm. am doole si ñun ñi nga xamante ne amuñu doole mm. te tey ji suñ la yóbbu woon pour nga dem xeex ji wala àtte xeex doo ko def dara amuñ njëriñ am nit ki ñun doole si ñun because ñun xam nga ne yoruñ ngànnaay yoruñ dara ñun ngay tiital ñun ngay xuuxal buñ la gisee dangay tase police yi mbedd bi sax nga gis mu fas kanamam mm-hmm. di la jaay ne ne man policier laa wala soldier laa yaa ngi dégg te ñun yéen ñun ngeen fi nekkal ñun ñëpp ñoo bokk benn kër dañu war a lekk dañu war a friendly de gis ñuy ree sax duñu fas seen kanam yi di wane ñoom ñoo fi moom te ndax xam nag leer na ma ba leer na ma bu fi dara duggoon ne fi tël mm. dara duñ ko fi def dégg nañu waxante dëgg <laughs> su fekkee ne lii fi ngay jël jàpp nit ñi di leen dóor mm. te mu pour sut goon bu correct sax mënuloo ko mm. e eh, goon mënuloo ko avec goon <laughs> waaw <laughs> Anyways, I, I used to say, "I'm The government and I IUC are jokes. Six and nine. Six and nine. mu ne government and IEC à 69 anyways di IEC bu mu nekk di mu indi benn bi mu indi benn bi so dafa doon li nga xamante ne war nañ koo moytandiku bu baax a baax war nañu def ay jàngat yi nga xamante ne moo xewoon ci presidential election bi gis nañu mistake bi nga xamante ne defoon nañ ko ba reject nga xamante ne mooy may Fati ak nga xamante ne mooy Um, docteur Ismaïla Cissé bañ yóbbule ci nekk àttekaay bi loolu lépp foog naa ne comme man fu ma ko waxee suñu njëlbeen rek waroon nañ di génn sa di xamal askan wi la moo xew parce que tamit yow soo waxee ki nga xamante moom ngay tànnal li moo est que la ñi nga xamante ñoo bootu ci gannaawam ñu xam li moo xew loolu dafa parce que loolu moo xew démb foofu noonu ay si kañ laa leen mbénki mbénkal hmm. mooy taamu yaay jëm bañ fi dawlooyee nit ñi hmm. ñu wëlbatiku foog loolu seen exécutif lañu hmm. war a xoolaat so kan seen exécutif lañu war a xoolaat doy na waar xam nga man bugguma fee wax dara ñu ngi <laughs> ñu ngi naan ma maa ngi tooñ. tooñu loore wala maa ngi tooñu loore waaye xam nga Gambia li mooy suñu problème. wala ñu ñoo jël si ma bi ko ñu ngi day négative trop. Mm. waaye dëgg dëgg suñu maam suñu maam laay wax Aliou Momar Jaay dafa dafa mag mag la trop suñu maam la. duñu wax ne duñu wax ne throughout di Gambia amul kenn koo xamante ne he's competent ala pour mu jël place élection imaginer mu ngi toog di war résultat ah Aliou Momar Jaay doo mën a xam doo mën a <laughs> suñu maam la soo foog foog suñu maam la ñu tooñ ko doo dégg lu moo wax soo dafa nekk mag léegi mag na soo dafa dafa jot pour dëgg-dëgg pour mu pour mu bàyyee lenge xale yi. même aha nga xamante ne ñu laal toog tuuti balaa wax bi ñoo soor resolve soxla wuñ toj laay pour ñi dañoo xool gis. te soxla wuñ pour pour xool bu baax a baax wala di wax ndànk-ndànk. yeah yeah dañ dañ ko soxla xam nga su fekkee am na réew yoo xamante ni lu toll ni Gambia réyut waaye comme élection mhm. euh, dañ ci dee am ay jafe-jafe élection is very sensitive dafa sensitive mhm, trop dafa nekk mbir moo xamante ni mbirum politique la dafa mhm. sensitive élection ñëw sensitive parce que ku nekk daf si jëlee xët-xët dafa génnee xaalisam jàpp ay support sama alal jiñ si dee def daf dee bari mhm. yaa ngi dégg moo tax koo fi gis ku toog président ñaari a def mooy ronk ci salaat ah, gi ci def daf dee bari loolu moo mhm. tax kenn du bëgg a ñàkka so in that case il nga def free mu am free ak fair election mhm. si bépp side ngaa ngi gis comme ni ñu rijegee saabale nii tey jii su fekkente ne nekkul right pour ñu reject ko truly speaking IEC ñu dee bëgg a teg fitna réewum Gambia bu ñu def li nga xamante ne ëllëg daf leen di def la fa indi jafe-jafe fii nii si biir réew su mhm. fekkente ne day never mention it si uh, lii bi uh, paper bi uh, li fi bi form bu gaay try nekk di indi things yoo xamante ne daf ñoo indi jafe-jafe because tam is true form bi boo ko bindee waxuloo ko woon ne ko ne képp kuñ ko oo si benn commission warloo bokka ba pare moom mu ñëw ba foofu ngeen doog ko koo wax kon dafa mel ni yéen a koo coono yéen a koy tooñ waaye nag su fekkee ne bind nañ ko si form bi it saabali it di fël-fëlaale sànneeku bañ koo bañ bañ koo bàyyi xel dëgg-dëgg moom itamit na xoolaat bu baax a baax. ok Tayib Tayib Senate nominating committee Sister Ami the law is very clear on this. Sabally is not qualified to contest. It's unfortunate though, cause I'm um, a staunch, I don't know, staunch, staunch supporter of Sabally. Yeah, staunch supporter of Sabally. Okay, you're a staunch supporter of Sabally, but um, yeah, it's unfortunate. Uh, mun na am tamit xamu ko woon um, comme ni ñu ko waxee rek uh, doomi aadama doomi Adam, rek la. Eh, mu naam tam moom Sabally expecté woon ne au oh, bu au turam ci yeneen commission yi loolu dina ko andi jafe-jafe. waaye eh, tamit képp koo xamante ne liggéeyoon nga ci nguuru jàmme. Hmm. jamono ji war nga mën a xam fooy dugg ak foo du dugg. ah fii da nga génn migrate dem si beneen parti dem feneen. Hmm. war nga mën a xam fooy dugg bi ko sax nga lan la ñu fa nekkoon ñu bari. u ma ne ñëpp de waaye ñu si ëpp on nañ leen si commune ii da si jaane commission hmm. ii da si oo nañ la fa mm. because dañ fay même sa tur xaaf bi yëpp nag lu bari am na même am na ay looya yoo xam ne attekat yoo xam ne sax tudd nañ seen tur foofu loolu kon dafa mel ne am na ñoo xamante ne ba léegi ñu ngi am bunta ak buntu attekaay bi ñu ko war a dem soo loolu moo tax eh, képp ki nga xamante ne bëgg ngaa dem waaye tamit eh, kii tam lu ma dégg la parce que ku dem ba nga xamante ne yaa dem nga dem toog pour dem defar luwaa war ngaa xam luwaa du fa nekk anglais exact war ngaa dem xool 1997 constitution lu jëm ci wàllum élection lu jëm ci wàllum néeg bu nga taxaw néegu député lan la laaj nit ki boobu loo a ay dem toog bu la ko wax xamuñ sa la mooy luwaa bi askan wi luwaa bi xamuñ ko te ñu ne ne ñoo dem defar bi xamuñ ko yaa dégg dégg naa ñu na time sax dañ leen dañ printoon ay books Mm-hmm. di leen ko jox yee yee maa ngi ko doon pour ñu xoolaat loi bi waaye am na ñoo xamante ne benn picc bu ko jàngee di daawaati dégg ba léegi mooy suñu problème lii di lii di mooy suñu problème dem si ñun even euh, social media sax problème boobu dañ ko am biir mm-hmm. ay Google ay yi nii dangaa dugg dañ laa bindal seen lifin terms and services yi nga xamante ne nga am ne yes ay ak yi sometimes am na yu fa nekk yoo xamante ne leer na la ne daf laa indi jafe-jafe waaye doo ko doo ko riid mm-hmm. si dara so loolu dafa nekk loo xam ne dafa jëfe te dama foog ne moo tax ma ne mhm. du ku tëb nekk député ku tëb dem nekk tica mhm. tija tija tija tij ba nga xamante ne fi ne nii ga nga beneen xaalis bu gën a yokk sa poos nga ne foog nga dem nekk man sax damay waaj next next next twenty twenty six waaw waaw naa yi moo fi parce que gis si Louga waaye dinaa la sànni mbokk naa yi moom mbokk bi mënatuñ koo dog loolu loolu mooy suñ problème dinaa la parce que ami su ma demee rek su amee moto damay jëlal moto waaw loolu mooy suñ problème moo tax ñeme nga faa dem ma moto la nga am oto tax jëlaloo oto foo ko teg boobaa kay political party bu dëgër nañoo teg. waaw dem boole waaw ñu ñu ngi bootu sax xam naa ne boobaa dinañ doy waa góobale am fans de. dañ bañ a am fans. dëgg yi ñu fi dee riij ak bu mën a riij askan wi askan wi bëgguñ dëgg yooyu. waaw dëgg askan wi bëgguñ ñu leen a wax dëgg. ñu leen ñu leen ñu leen a yokkal xoroma ki mais ak ak ak i jimbo la lañ leen bëgg a soo. Euh, dem comme ni ma ko waxee woon rek euh, su ñuy tànn ki dañ na ki nga xamante ne moo fa jarat moo fa jarat ki nga xamante ne gëm nañu su fa demee dina mun a andi wécceeku wécceeku su néegu député yi bu naa tam nga wax ak comme ñi nga xamante ne ñooy bàyyi xel mhm. euh, pour mun nañ di call di seen ting bi am na whatsapp am na whatsapp yaa am na whatsapp dugal dugal rek nga def ko whatsapp nga call ñu am nañ connexion boo ñu callee dinañ la tontu amul même problème Euh, boole ñu WhatsApp because léegi boobu moo gën a yomba pour mm-hmm. communiquer du mm-hmm. ni direct call bi yow mi nekk bitim moom mi ngi direct mu ngi WhatsApp mu nga koo save LSTV ni may number LSTV bi yaa mu nga koo save LSTV nga daal di call ci WhatsApp bi nga send voice message sax we are going to play it and you or you can also send a text message uh, yëpp nañ ko read comme ni nga xamante ne nekk di dee comment ci uh, fii ci uh, programme bi comme ni ñu ko déggee rek ñu ngi waxtaane li nga xamante ne mooy ay ay ici rejection bi nga xamante ne reject nañ ko Momadou Sabali gis nañ correction um, Fourier Abisar Lolan Laite, uh, what are the basis of the rejection of um, nomination of Momodou Sabali and Fatoumata Jawara moom tam dañ ko daal di reject waaye moom um, dafa mel ni mu ngi toog mandu um, parce que comme um, na luy luwaa bi I don't know how to say it but anyway su fekkee nag ne gëm nañ ne IEC du leen teg uh, teguwut ci luwaa am nañ àq pour dem foofu ci ne bu waaye tamit xam nga li problème bi may ma waaye tam léegi-léegi tam am su fekkee dara utuloo ko pour dara hmm. su fekkente ne xam nga ne ma toog ma ñàkk a toog yow développement nu Gambie nga bugga mm. Gambie mu jëm si kanam yow loolu moo la ñor mm. loolu nga bugga suñ la rijegee ne bokkuloo si tam amul problème man de Gambie laa bëgg a yóbbu rek si kanam waaye comme te aw ma euh, li nga xamante ne sax ak luwaa ma mm-hmm. bàyyi ma toog waaye lu ñu sonal suñ poos yi moo ñu sonal poos ah, dëgg la because xëy na salary bi nga tàgget foofu noonu moo tax di nga def sa kémtalaay kàttan pour ñu mën la faa teg dé nañ waxante dëgg even gis nga ay nguur yi yëpp man dama ne ami loolu la mm. parce que dara jarut a forcé maa fa dama fa bugg a nekk suma morom dafa bugg a nekk man kat nee nañ mënuma faa nekk mm-hmm. ma noppal suma boppa waaye xam nga ne bu doon fekkoonte ne dañ ne képp ku nekk président kenn du la fay doo dara kenn du xëccoo nguur. benn benn lay doon. Ah, man dañ ko dul xëccoo sax parce que soxlawuñ ko ndax xam nañ ne doo dawal oto doo dawal dara. man daa dem xëccoo doo ko xëccoo parce doo dawal doo dawal dara doo am. doo toog doo toog ci air condition kenn du ko xëccoo. Mhm. képp kuñ fi wax ne député duñ la fay weer bu dee. pour di ko xëccoo dégg naa ñu ne liñ leen day jox. ak mhm. li ñu leen lii pour seen transport ak seen. yooyu gisoon nañ ko gisoon nañ fi sañu bëgg a lebal seen bopp lu toll ci fifty déglu député yi loolu fa mel ni seen seen seen seen période bu sax doyul <laughs> doyut leen. yàlla na non nit ki nit nit nit dem doomi aadama si maa moo du doyul man sama méttitu xol méttitu xol bi ma am yëpp su ma ko naree wax dinañ ma fi jël dinañ ma fi jël si wala ñu ngi dinañ ma jàppee noonu parce que man lu ma métti mooy Gambie nu moo demee mm. te weeru koor ngi ñëw am man dama ngay xalaat ma ne bi man fu ne man naka la ñoo def ñun dinañ soona because yëpp moo seer si marché bi yëpp moo seer saaku meew léegi mu si five thousand dollars si moom la saaku ah, meew di saako sukkur ñëwut ceeb ñëwut diwli ñëwut nga amee njaboot ñoo lekkee dimbale ci weeru koor rawatina ñu ne mburu ten dalasi weeru koor moom kenn du mën a ñàkk bañ a lekk mburu kenn du mën a ndogoo <laughs> yow moom mun na woo ba bàyyi te waxoo mburu déedéet il faut moo ko bi laa affaire mburu bi dafa naxaat te nu mu tolloon noonu la toll xam nga su mu nekk di nga wax mburu non xam nga su fekkoonte ne wax nañ ñu ne euh, mburu bi yokku na mm. ba pare ñu yokk mburu bi ni mu toll sax tan tan boo doon jënd fuul mën nga jënd xaaf lekk waaye nag moom dañ ko gën a wàññi gën koo siil waaw gën koo siil am yaata de mburu mi <laughs> <laughs> gën koo siil kenn xamul nan nan nan la mel yaa ngi dégg léegi nit ñi a dëkk si métit boobu naxaar boobu pare bug see boole tam ñuy seet ñu ñooy dugal ñu ñooy dugal bug soo politique politique dina dem ba mujj maana dañ dañu jékki buñu jékki-jékkee boppam Gambie mooy daw bañu fi daw Gambie moo naan coppet daw moom bañu fi Gambie su dee ñu fa nañoo dem ah mooma jaax xanaa ñu toog rek ut beneen tur tuddee ko suñu Gambie dina Gambie su doon dama xam nga dina dem ba mujj gi dina dem ba mujj gi even euh, foore na si boppam sax ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon di jaay di liggéey mm-hmm. dinañ dem ba mujj gi nañ ñibbee di seen seen seen dinañ ñu ne sa pulaar you that's why you like bread Assane Sow sa mbokk la mu ne mu ne you are pulaar that's why wax nga dëgg pulaar la moo loolu bi laa wala affaire mburu mi moo tax de mën a bàyyi mburu dafa ma naxari dafa ma naxari dafa ma naxari trop affaire mburu dafa ma naxari trop lu deew na ne sama sama coup de gueule la ni nga wax si franc sama coup de la maanaam daal suma suma xol bi la nekk waaw loolu di xol di xol nag tàpp la fa sa tur bu ma si am man ma am mburu woni guuru fof ko fori guuru fof ko fori min go guuru fof ko fori haɓe so fekkonno to senfuuto fa jat ten dala tappala ko jat feewin dala min ɗon jat to ñu ne waaw waaye comme te ñaar yëpp nuñ làmbato to ndax nuñ leen di defaree sa bokkut so buñ jëlee man daal something else dëgg dëgg Gambia is so sad Gambia is so sad kon affaire politique moom dëgg dëgg dañ ko war di jël di ko tegee côté bañ ci indi benn fitna jarul yenn yi jarul yenn yi parce que fuñ toll nii moom man dee wax dëgg fa ne yàlla fas yéenew maa jug naan maa ngi xeexal benn politicien ci dara because bu ma laa xeexal man am na lu ma war a xeex te xeexuma ko kon soo see ni ko waxee fàññe nga balu ah, loolu fi nekk di yow fàññe nga balu yow nga dem deyal ma si fali na le man mi nga xamante mu ma dem yow man su ma laa xeexal yow su ma ma mhm. sa doom yi yaa ngi leen jël bàyyi leen si kër wala nga paasal leen ñu dem tukki dem bitim réew mhm. léegi man mi nga xamante ne maa si suma réew tekki ma fi dara defuma fi dara pompe sa bënn ma ko suma buntu kër mhm. ma ne man maay jamante ay xeer ngir yow non nañ waxante dëgg su ma si gaañoo man maa ko teg suma bopp. yeah obviously obviously yaa ko tegal sa bopp eh, ñi nga xamante ñooy comment yëpp eh, ñu ngi lay jaajëfal good morning girls good talk eh, good programme Alaaji Cissé jërëjëf ba léegi mun ngeen a bokk ci programme bi dafa mel ni Tayib Senat na beneen comment mu ne section 90 of the constitution which says that no person shall be qualified to be a member of the National Assembly. if they have abused or misused his or her office unlawfully or acted in a manner prejudicial uh, to the interest of the state. Yeah, Poplin Koko Tesa, section 90, subsection 1E, e ci 1997 constitution bi moo wax lii uh, parce que ay si foofu ko tënk ne loolu moo tax ñu daal di dàqalu li nga xamante ne mooy nomination bi ba tax ma ne nag su fekkee saabal yi moom sañoon na wala eh, demoon na ba sañ-sañ bi ne dafaa dem taxaw si néegu député yi oh. waroon naa am sañ-sañ bu toll ni dem si 1997 constitution bi yomb ba ba dee te tuddal si sax nga dugg si si googu eh, si googu dem saaj eh, constitution bi Gambie mu andi la ko mu saaj affaire élection bi ku bugg a taxaw élection bi yëpp lan la si constitution bi wax ah, balaa mu doon agsi fii tey ah, soo even ay si génn si ñu wax ko ko Eh, kon nag eh, moom si boppam war na ah, mën def ay gëstu mu ne prepare for the worst what will be the worst ah, we don't we don't we don't we don't need we don't need something worse um, it's already worse so we don't need something worse than this um, <laughs> all we need is peace because we are known for peace uh, we are we are peaceful people dima soxla rek leen ma rek nañ wàññi mburu mi maa ngi baax maa ngi leneen moom soxla ma ko ah déjà réew mi dafa métti réew mi dafa métti you are saying we should prepare for the worst King Job is um no um, and Pogumane were you prepare for the worst because um, we have already seen the worst. We have already seen the worst. Because Gambia réew réew teranga la. Mm-hmm. réew jàmm la. ñaanu yàlla mu romb fii la su rombee fii mën naa cee. boo boo boo xoolee naka ngay xamee ne ñun ay nitu jàmm la. mën mm-hmm. nañu wax wax bu rëy nag wax wax wax ba ne lii la waaye ay nitu jàmm la. ndax tay mu jàmm la ñu xamee tay mu jàmm bi ñu xamee problème bi ñu fa daw. buub seen i njaboot daw. Mm-hmm. kon loolu daf laa wane ne bëgguñ fitna ndax attanuñ fitna. Gambia attanuñ fitna. ñun meluñ ni ay ay Ukraine ak yooyu ñooñu développé am nañ ah, développement dafa mel man Ukraine sax ma gën a yeah because ñooñu sax tan-tan am nañu développement seen réew mi rëy na rëy boo xamante ne bi luñ mën ci am jafe-jafe fu ne ni bu toogee ak na ñu wax ne ay two to three years dinañ euh, bilaat seen seen dëkk bi waaye ñun Gambie fu ne ni benn problème bu ñu am nañ fas yéene xam na ne mooy suñu sànni tàcc mhm. building yu ndaw yi ñu ci tabax mooy suñu sànni tàcc bés bu ñu ci dof dof la war a xalaat mooy naka la ñuy fexe ba change bu bàññul be exemple dinañ dinañ soxla suñu capital bële boo fa duggee doo bugg dara lu mooy sumi yére sumi say yëb taxaw ne maa ngi nii ah, yaa ngi dégg kon ñu defoon lamen sax euh, déedéet Neema United State of Neema ah yow laa dégg Neema United State non lamen bi capital city of Gambia lamen bu war a nekk bu war a nekk capital city bi nga xamante ne Ehm, benn poti ndox sam mu fees eh, dafa doon li nga xamante ne war nañ koo war nañ koo a xoolaat bu baax am na lu bëri li nga xamante moo lañ ko war lijjante lu dut eh, nekk fi di xiiro ak ngaayoo ci wàllum politique sa politique jarut yenn yi parce que nit ki nga xamante ne moom ngay xeexal soo demee ba nga dee foofu noonu yow yaa ci am jafe-jafe rek waaye ñoom ñi nga xamante ñoom ngay xeexal mhm. eh, ñoom ñi nga xamante ñoom nga waral sa bëgg sa bëgg-bëgg bi tax nga dem foofu di xeex ak ay taxader ñoom suñu paree nañ dem tëral seen air condition lekk seen i benn ci bu benn ci yàpp bu saf-saf nelaw seen ron ay condition yow mi nga xamante ni yaa ay gaaju gaaju dara sa da ko gis def seen duurang bu dal waaw wala def bu dal jabar toggale ñu lekk ba suut jaaxaan géex taal seen ay condition jàkkaarloo seen télé yow ba soona dem sa kër fekk sa yaay dangi dangi ba soona toggal la mbaxal nga lekk soo gaañoo presque moom naa jënd sa moom naa jënd sa problème la moo nekk soo politique jarul mbaxal ngay ngay ngay ba bëgg bëgg ray sa gisuma àdduna bi lu ko jaral bakkan dafa expensive trop bakkan dafa dafa expensive life bi dafa expensive bakkan dafa loo xamante ne su xëyee ba dem du ñëwaat so doon doon na li nga xamante ne <laughs> kii boobu uh, lii boobu kan la yàlla rek laa ko may mm. boobu mm. yàlla rek laa ko may rob seen mi nga xamante ne moom moo ñu sàkk mm-hmm. moom rek laa may mooy xëy suma ne coppet suma bakkan bi te mënuma si dara mm-hmm. waaye bu passé loolu du mm-hmm. jox keneen suma bakkan bakkan bi duje yoruma ay bakkan sax yu may maye. Mm-hmm. loolu la tayib tayib moom mu ngi rek ah, mu ngi tayib rek. <laughs> waaw waaw waaw am na am na Omar Loum tam gis naa mu ne di Gambia is coming to a police state with abuse of power mm-hmm. and brutality and corruption without investigation to place, and uh, the justice system is corrupted and incompetent. Yeah, I feel like I'll go to my village. It's cheap. <laughs> okay, tell us your plan. and we'll go there. because it's not only Mariama who likes bread. I love bread too. um, given the Yana Commission um, clearly found that Mahmoud Sabali, assistant of Yahya Jammeh, in the later the latest daylight robbery of Gambia's national resources was abuse and misuse of office. Yeah. Jana commission bi tudda nañ ko yeah. Another another lu leer la loo xam ne ñun sax xamuñ ko na maybe loolu clear wutoon suñu boppay. waaye comme ni ñu ko expliqué nii tamit ba léegi rek nit ki mën na see sukkandiku ndax nee naa lépp. lépp lépp fii la ay si sukkandiku pour pour pour pour loolu tam moom moom saabali si boppam commission ba mu weesoo yàgg na. Mm-hmm. te xam na ne bu ñu tuddee foofu turam war na mën a xam ne man mii kat ñombe bii tudd nañ ci suma tur. kon warutoon koo fàtte fàtte lu wala sax mu fàtte ko. moo tax ma ne loolu yëpp moo ta bi xam nga ñu ne moo tax waaye gëstu baax na waaye tamit dara boo koy def gis nga laajte. Mm. même bu ñu lay xas naan la yaa mën a laajte yaa xam man dama nekk nit koo xam ne comme man exemple dama dee laajte rek mm. man lu nekk dama dee laaj mm. lu nekk dama dee laaj baaxoon na tam pour boo jëlee forme bi even soo ko fa gisul nga delluwaat si ñoom nga ne leen man kat tuddoon nañ suma tuut si lii ndax ba léegi am naa di right pour ma bokk wala aw ma waaw mu doon jox nit yi hope hope waaye xam nga ñi ñu yëkkati ñu solu def seeni ay t-shirt euh, ñëpp taxaw fa nga gis askan wi ni ko toppee mm-hmm. mu dem ba fa sax boo ko gisee nga xam ne ne dëgg-dëgg bi am na lu ko naxari te rus na itam mhm. na lu na so is um, both parties ay si war nañu a mën a si wax ak ci seen duul si waaye tamit ñi moom tamit war naa mën a def ay gëstu balaa yëpp doon am um, pour ñu mën a moytandiku li nga xamante ne mooy um, jafe-jafe yu nga xamante moom la am da tax nag uh, ñi nga xamante ñoo bootu ci gannaawam daal di dem foofu uh, ci ay si ba di fa ay xay so doon na li nga xamante ne ñu ngi koo ñaawlu guñ ci police brutality comme ni ñu ko waxee Ehm, Gambia antalu ko parce Gambia Gambia lu ndaw la xamul dara dara lu dul ree ak ree ree signe ak naan ak naan buur lekk mbuuru xëy na ami brutalité la ñuy def waaye mm. bu dee police yi kese la police ma xam si dëkk bi rek kese kese kese kese mm. luñ mun si def def def bu yàggee dinañ dellu gannaaw bi ko sangalal li def sa broda mu ngi taxaw sa sista am na sa sista musiba Gambia dafa ndaw Gambia lépp loo fi def yaa ngi sa mbokk de Gambia dafa tuuti dafa ndaw ñëpp a bokk mhm. lépp loo fi def ka ngaa dóor boo moytul mooy sa jëkkëru mag wala mooy sa jëkkëru rakam mhm. wala sa mag moo ko jur wala sa rakam moo ko jur moo tax ma ne la lépp luñ ko fi mujj def dina dem ba mujj gi politique politique si boppam dinañ ko rëccu dinañ wax ne suñ yëgoon lii mhm. duñ ko fi def ndax lu ko war a def nañ ko ba pare dinañ ko rëccu kon lu gën rek mooy bu ñu dugal seen bopp si lu ñu munut nañ xam ne ne Gambia seen ñëpp ay brothers and sisters nañ nañu ne ne ñëpp ay mbokka nañ jar sa dóor jar sa def dara bu dara xewee boo leen mënee contrôle contrôle boo leen wala wala sax wala sax mënoon nañoo ëpp backup sax ba bi ñu ñu fa gisoon ñoo tuuti woon. ba tax nag ñooñu am sañ-sañ bu toll nii jël ay xeer. waaw parce que am na tam ñu doon am na tam am na ñu nekkoon gisoo gars yi ñu bëri foofu nañ doon bàyyi. am na ñu di uh, kii nii la di di wax di complain di wax ne ne uh, naka la ñu xam ne ne tey waa UDP ñooy am nomination. Mhm. génnee soldat yi police yu bari teg leen foofu noonu ci AIC. ba pare xam nga Gambie soldat yi lañ gën a respect police yi. même suñu fa taxawaloon soldat yi yi ñu ne gars yi ñu ngi leen bëgg a wan ne ñoom. violence fekk la ngay sa cootaanku liir xamal ne génnuloo ci mbir ma non non c'est true génnuloo ci mbir ma xam nga su fekkente ne di moytu ne mm. yéen da ngeen dee def da ngeen violation dafa am ak yooyu noonu mm. su gars yi ñëwoon rek ñu ne leen rijek nañ leen sabali ne man kat dina dem ci bërëbu àtte kay waroon nañoo ànd ak seen nit dem seen war nañoo wecci seen i seen dem seen ñi ko doon dinañ leen rusloo mhm. waaye nag su fekkente ne wax nañ lool sabali dugg ci autom ne dina ko lijeenti yow nga ne lool du ci am japp ay xeer di jam ka ka sanni ya ngi indi sa bokk jafe-jafe te nee naa léegi-léegi am na ñoo xam jaru nga xeex ak ñoom parce que tak dere lu mu dee dee ñu upp ngannaay lu mu dee dee am nañ benn training bo xam ne am nañ ko te ñoom nañ fi tek pour suñu kaaraange te war nañ tam fépp fo xamante ne nii si ay si yëpp branche banqaas yëpp war nañ fa dem tok ñom police yi bari fa because nit ñi léegi dañ doy waar way way way way taxadar bi fu nek lañ nek parce que ibn kala buñ demee kané fi gaay ñu ngi fa woon dañu fa bari won way ñom dañ gëm ne ne comme dañ indi ñu bëri because dañ ñu parce que man man man bu ma demee AIC ak ci bari dee def ma gëmënti lo dé waxtu bi waxtu bi ñoo jaamu rek waxtu bi mu ñoo jaamu amna amna bu nga na man waaye waaye xam naa mburu nga ne ma sama pare naa la jëndal ful mburu parce que parce que mburu déplacé na oh am na ko wax nii waaye li wax doy na waar trop mu ne mu ne most of our police officers are something something bunch ah, of something <laughs> anyway you're not going to read that read that <laughs> yeah <laughs> okay Mariama dafa uh, mel ni waxtu bi mu ngi ñu bëgg a jaamu dem um, naa léegi tey kii commencé di yëngal baaroom Ousmane Diallo mi nga xamante ne mooy suñu um, cameraman bi so amna dañuy dal di eh, tënk li nga xamanteni mo la wax rek dal di tej programme bi eh, su ko defé ñu dem seet leneen yi nga xamanteni mo lay wara def eh, fi ci yaaka na tay nomination dafa am de bi wan yaa la tey la friday tey la friday xanaa Ousmane Ousmane a mu fa xam naa lu si munti tukkee rek dinañ ko indi because gémma tam gis naa moom tam def na liggéey bu nice di mm-hmm. moomeen gars yi mm-hmm. mu taxaw wane boppam wane ne tam ah because loolu la xam nga ñun taskat mm-hmm. yi yi boo xewee doo daw doo dem fenn il faut nga jël li askan bi soxla te mu fa taxawoon taxaw seeni biir gi jël li nga xamante ni moom la askan bi soxla ah, ko bu baax a baax it's very risky but leen li nga xamante ne euh, moom gen soxla pour xam so Mariama Euh, waxtu bi dem na sa sa mbokk bi mu ñëw mu ñu bëgg mu bëgg def seen jikko mooy mooy jamfaa waxtu pël la kon ma koy woon li ngay wax ne pël yi jamfaa naxari na ma sama xool bi daf si naqari pël yi jamfaa rek gisoo waxtu bi gisoo waxtu wax la waxtu pël la jamfaa rek lay def soo ko defee rek ah, wala looy tëjee tey ci programme bi Ah, di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi doon bàyyi xel LS TV one mhm. rawatina ñi nga xamante ne ni dañuy sapoo ak ñi nga xam ne ñu ngi ah, ah, li nga xamante ne moo di LS rawatina breakfast show bi mhm. wax dëgg fa neex yàlla ñu nekk ñoo xam ne dana ñoom ñoo ñu gën a may doole mhm. tey bi ñoo start ñu doon wax waaye bu ñu demee tey ba gën a mën a taxaw sax di fësal boobu ñoom ñoo tax ndax bu ñuy bàyyi xel dañu dee encourage ñu wax ne li ngeen naa def dafa nice ak ñeneen ñoo xam ne sax duñ comment waaye dañuy bàyyi xel ba buñ paree dañu dee texte privately di ñu wax ne ne li ngeen def nice na mhm. suñu ay mbokk ñu ay am di jàmm ñu ngi jaajëfal képp koo xam ne ñaa ngi doon bàyyi xel LS TV1 eh, ci programme bii di breakfast show bi ana ci Alifa Dera ak man ñu am may Mariama Ba ñu toog fi nag lu ñu saf nag moom la ñuy wax waaw ci <laughs> réew mi nañ dëkk ay citoyen nañ te buñ gisee lu rafetul dañ koy wax mhm. tey lu ñu indi woon mu jëm si li nga xamante ne nii moo dee saabali li ko ay IEC reject ne daal ndax dañ ko tuddoon ci ay yenn ci ay commission moo tax mun saa di wax ne rek saaba li ni mu ne tekk tamit war ngaa wax ak taskatu xibaar yi hmm. ñu xam lan mooy sa lii wara waaye itam boo demee ci groupe atekaay bi tamit taxu taskatu xibaar dinañ la fa topp xool lan moo fa xew waaye tamit comme sa supporters yi nga gën leen a ñaax ah, ndax tam fitna du soxlawuñ ko ci réewu Gambia hmm. te wax dëgg fa neex yàlla dund gi seer na sonn nañ li may wax always nit ñi di ma ree mburu dafa seer sukur dafa seer meew dafa seer lépp a seer nee naa maj rek moo yomb bi réewum Gambie muy almet mhm. kon war na nañoo mun a jàppalante ngeen dimbale ñu ngir yàlla weeru koor baa ngee ñëw am na yeneen yu nekk suñ boppay lu dut nekk di wax affaire fitna li nga xam ne moo di politique dafa jot pour politique ñu teggee ko côté bu jotee ñu xam ne jot na dem sànni suñu carte dem toogaal suñu kër ko ku wiin nga xam ne noonu la ku fa toog nga xam ne noonu la ku ñu rijeg nga xam ne noon la mhm. ngeen bàyyi askan wi ñu nekk seen aafiya ak seen pot ndox daal loolu la ñoo ñaan di wax ne nag gis ngeen Brefast Show bi biñ ko starté ak léegi mu ngay dem eh, di ñaan képp koo xam ne yaa ñuy seetaan nga nekk ay compagnie institut wala nga am dara bëgg na meew bañuñ ko ngay jaay sutu bañuñ ko caaja sax téléphone lépp looy jaay ñëwal nga sponsor li nga xam ne programme ba si ñëwkat yi mm-hmm. soxla nañ leen because tamit baax na every day ñu sol man taay abaye abaye laa ko jàppe su ma yaay ma jëndal abaye abbaye la may jënd nee ma sonn naa si jënd abbaye hmm. waaye ma ne ko jëndal rek jëndal rek kon war na ngeen jàppale yéen téyeer yi ñëpp képp ku ñoo bàyyi xel ngeen ñëw ngeen sponsor ñu solo ñu dak dara si taabal bi même bu dee meew la because dina dem ndax gis nañu ñi ñaa ngi ñoo bàyyi xel hmm. soxla nañ loolu te Gambie loolu daf fi laaj nañ war di hmm. jàppalante dangaa gis yeneen réew benn programme mais am fukki sponsor ak wala fukki sponsor juróom donc ba ngay soo da ngay juum ñu am ko ñu leen di jàppale kon ñun tam soxla nañ ko ñu jàppale because lii dafa metti toog di wax di wax ak askan wi lu nekk nga si jóge mun nga génn mu eenal la dóor la dóor la boppa yow yaa fi mm-hmm. wax lii koy def yéen a tax kon képp ku ñuy bàyyi xel nga mun ñoo jàppale si sponsor amee compagnie wala dara rek mun ngaa dugg si ngeen jàppale ñu si li nga xamante ne nii moo di si sponsor bi ndax soxla nañ ko yeah okay thank you thank you very much Mariama gis nañ tey itam ne thank you my beautiful sisters thank you to beautiful brother thank you so much ay sa comment yi gis nañu ani nga fi ay leral yu bari ci comment yi ni lay bu baakha ba ak képp nga xamanteni nak dal di nga sen fi say comment ak nga xam nga xamanteni ne ñoo ñi nga xamanteni ñoo like suñu programme bi nga xamanteni ne ñoo dénk seen ay bot bi nga xamanteni moy moy moy mooy IEF LSTV wan jamono ji xamul ay ci bu ngay ñu suma jàppale ko ci lay liggéey mu ngi ni Sige ma IEC ah wasal ta IEC ñoo suma xam ma yow IEC IEC IEC ba may tëj ta bëgg a tëjee IEC IEC IEC boobu ñoo sonal ñi ay si ah, buen ñëw buen ngeen ñëw war dañu sonal trop war ngeen ñëw war ngeen a war ngeen a ngang ñu wadd ay si ah. ngang leen ñu wadd ay waay ngang leen ñu wadd ndax sonn nañ trop seen biir gémmiñ yi su ko defee ñu jaajëfal leen bu baax baax ci ah, sopp bi ngeen sopp LSTV One surtout programme bi di LSTV One surtout am ñu nekkee good breakfast show surtout programme bi ah, <laughs> Eh, suma xol bi sedd na neex na ndax ci famille séeréer la bokk comme te moo juum nii mais tëj moo juum nii Mariama baax na programme bi breakfast so ana ceege man mii di Ami Fadera ak Mariama Ba comme ni ko defee saa su nekk rek doo waxaat nga ne ak man mii di Mariama su ko defee rek ñu wax leen rek est-ce que balaa tëj est-ce que xam nga ne ñun ay comédien lañ am na ku ko bu sax dama teg mu ne est-ce xam nga ne yéen seen bravasso bi yeen ay yeen ngeen ci yee parce que am na ñoo xamante ne ñoo seetaan ñu and ak stress so fay foog ñu reetaan ñu gis reetaan bi suñu kanam ñum tamit stress bu mun a génn am ci seen bi dafa ñu mëna a ñëw toog rek dal di ñangal fees suñu lex yi même fees tam daal di ñangal so lolu du du andi am ci du kanam ñu ko ba tey ما ما متج باهنا anyways ما يام غير بس متعفري ما يبغى لي أربعة ثمان بس لا ما جبنا عندك جنب سبعة أم بأثر إن شاء الله كلن كفوفو نيجي وجين ci xibaar yi ci two o'clock ak three o'clock ci kàllaama nasaraan ak li nga xamante ne wolof respectively ana ceeg man mii di Ami Fadera ak Mariama Bat Bala Bala boobu toog leen ngeen xaar ma ministre yi ñu ngi ñëwaat Ousmane Camara dina dem fi nga xamante ne nag mooy Brikama wala Kanifing pour andi leen nomination yi nga xamante ne nag ñoo nekk am ci jamono ji su ko defee rek ngeen kalu ko foofu topp suñu ay programme jox leen bi daje ba kanam tuuti eh, eh, ah, ak tamit xaar leen ñu ba alterneng ci breakfast soobu waaye nag dañ ñëwaat ci kanam andi leen li nga xamante ne mu gën a fes yi li nga xamante ne leen fi liir tey ci kayitu xibaar yi ba balaa boobu wasalaam ak suñ caméraman bi big up big up big up ceebi la bi la big up big up tay dañ garaaw garaaw la dañoo big up yeah jërë jëf